Fatou Diouf doomu am satu ña ma di Papa Demba Papa Demba maamam ak sama maam yaay ñoo bokk benn ndey ñoo bokk benn ndey aw njoon mooy sama maamu yaay moom Marème Diouf mooy maamam ñu bokk benn yaay muy suñu nijaay nijaay bu baax nag du jaam bu yaru bu mën a kat waaw dëgg yàlla amul benn xarma yàlla ak fàmmeem Pape Demba daal baax la ñu xam ci moom kaf ree ah, bëgg mbokk loolu la ñu xam ci moom nag ñu koy ñaanal yàlla lii ngeen koy defal yal na ngeen ko mottali seen sago yàlla xam ni dara daal ci baax bëgg mbokkam li sama rakkale ñoo bokk ndey ak baay moo mooy suñu ndaay tey jii presque moom lañ fi dese suñu gaañu moom mu ñu ah tonton Pape nag mën naa la wax lu bari ci moom ndax suñu nijaay la baax na bëgg nañu aar nañu iir nañu wax dëgg yàlla fu ñuy fekk ñu ñuy sagal ñun daal mooy suñu sag gannaaw yàlla fii ci biir tubaab yi lu xew mu teew dañuy jàppale ñu taxaw loolu ñu mën bari na ndax tonton Pape moom lu xew mu fi par exemple mën naa la wax suñu affaire yi ñuy affaire famille bii moom moo koy gérer suñu turu famille chaque année daf koy organiser dañu koy defaral ba mu baax les ans daf na ma lool ci moom. waaw bu suñu waajur yi génne àddina chaque fois day ñëw mooy taxaw day ñëw taxaw te loolu xam nga tamit lu baax la. Pape Demba nekk na sama mbokk doon sama rakk boole ci parce que magam laa daan àndal Assane donc euh, Pape Demba ñëw na jamonoy tey fa man maa doon directeur artistique ba donc euh, waaye lu bari jëm naa ko won jëm naa ko ci dugal parce que nag moom euh, nekk na nit koo xam ne ku nangu la xam nga rôle boo ci amul amoo dafa naa ko balaa nga koy def moomeel loolu lay njëkk laaj mu am amour déjà ci lu ñu def euh, nekk nag ku tàng de nature vraiment te nekkul euh, koo xam ne tàngaay boobu muy àndal soxor la société yi tàng ñëpp seen xol dañuy yëwét donc bu kenn jaawale tàngooru nit ak yërmande parce que boo leen fekkee rek ñoom ku yëwén la ku nangu partagé la pare nag euh, loolu moom yàqu dara ci jikkoom mais il faut nga dugg ko ba xam ko euh, xam ni ku mën euh, bokk la te man maam la ci man boo koy seet bokk bi foofu la nekk maam la ci man seen waa kër dañuy demlante ñu nekk ñoo xam ne nii vraiment ci li ma leen xamal daal famille bu jiw la bu ànd ak teraanga nekk it ñoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla baax rek moo leen daan ñu nekk ñoo xam ne nii ci li ma xam ndax magam laa doon àndal donc li may wax yépp bu ma ko gis moom ci kër gi du ko wax ci yàlla rek tax may seere euh, famille bu baax la famille bu ànd ak yow ànd jekk ak teraanga soo koy wax sax day xaw a jaaxal nit waaye xam naa ko ci mbaax boo xam ne nii euh, alalam mën ko bokk njabootam noonu la mel ak euh, jabaram man nag euh, bu ñuy takk jabar fekkuma fa moo tax ma ne ko yóbbante rek ne ko loolu moom pap doo rëcc ma naa la ci duma duma wax xam ne parce que sa mag la man maa la waroon yóbbul mbir yi parce que téere ba maak moom euh, di la wax rek guddalu fan yàgg bawul dara te lii nga xam ne nii dugg nga ci dal na ci yàlla may ndam ba faw ba faw ba faw yaa xam li nga ci bëgg yàlla na ko yàlla defal saay maa ngi tudd Ndey Marème Ndiaye rue trois angle douze fii ngeen ma fekk kër Papa Demba Lam ma bokk ak moom ndey ak baay di magam muy rakk bu baax bañ na ko ba yaay la may wax su ma ko waxee mu ne ma yaay sama yaay papa Demba lu nekk ci poosam dina ma ko jox day jënd bay jënd boppu xar di ko lëmas di ma ko buuxal suba teel daf ma def comme yaayam di ko jur day jékki-jékki sax ñu togg mu lekk ba suur ñëw indi bool bi noonu ub ko ma ne ko lan la lekkuloo mu ne waaye yow lii daal bu ko fi kenn toggati man lekkuma bëgguma ko boo ubbee palaat bi mu set wecc ñëpp di reetaan Papa Demba ñoo bokk ndey ak baay yàlla na ko fi yàlla saxal aar bi wutu ci dara su ma ko waxee nangam mu ne déedéet ndey bàyyi rek bul wax même goro dama ko ne wax ko sa goro mu ne ma déedéet duma ko ko wax ndey day mel ni dama bugg dara ci moom doomam ñëw ne ma waxal sam mu wax laay affaire sargal mu ne déedéet duma ko ko wax day mel ni damay wut ci moom dara mu bàyyi ba guddi xale bi woo jox ma jëkkëram ma ne ko Ablaay dang ñuy baal de papa Demba moom nee na ci sargal bi nga bokk mu ne mu ne ma man papa Demba sama papa la sama lépp la ndax maa ngi sëy ak doomam kon nag su ma ko déggee sax war naa ñëw man xam naa lu tax waxuma ko papa Demba ne ma moo daal ñëw wax ba pare daan na ko wax naa ko ko de mu ne ma ndey daal waroo ko woon wax man ko xankay boo amee doom ñu ñaari doom jigéen ak góor muy séy looy def war nga ko wax jëkkëram sargal ko nee laa la daf ma def comme yaay ñoo bokk ndey ak baay ñaar rek lañu kenn ki dem na moom moo fi des xataluñ sonaluñ loolu moo moo may jàpp loolu moo tax ñun daal ñu ngi bokk ak papa Demba mais def ñu yërëm yërëm suñuy doom lu mu am ñun la koy bokkal loolu moo tax mais ñuy wax ci papa Demba mais man sama xol loolu moo tax sama xol bi di jóg papa Demba baax na torop li ma leen wax rek la lu mu am da koy bokk ak ñun li ma leen wax rekk la ku ci am problème dangay waaxu boo feebaree sax dangay dugg ci biir néegam wax ko mu dindi dara ne la defal nii ak nii te soo ko defee yàlla dimbale la ci démb rek sama goro feebar na dama ñëw ba ci moom ne ko paar diw de dafa feebar mu ne ma ah ma ni waaw mu ne ma kaay ñu dugg ci néeg bi mu dindi li muy dindi jox ma ne ma boo demee na def nii def nii ma dem defal ko mu daal tane sànq rek tey rek sànq rek mi may woo ba ma ne ko dinaa fa ñëw sànq mu ne ma tane naa Papa Demba daal man damay toog sax di xalaat am na yoo xam ne waruma ko xalaat mais damay xalaat papa Demba yal na ko fi yàlla saxal te guddal fanam lu mu yootu yal na ko jot ci daraja yonent bi lu mu yootu yàlla na ko jot ci dara daraja yonent bi papa Demba rakka joo xam ne dafa bootu ci sama ginnaaw gi lu nit ñi yëg lu nit ñi yëg dañ may yee ay deux heures du matin sama téléphone ma jël ñu ne ma yow yaay Ndeye Marème ma ni waaw ñu ne Abbas Ndaw mani ni jàmm mu ne ma waaw jàmm la Assane sa frère dafa daanu téléphone am lañ doon seet gis moo tax ñu woo la ma ni bëreet jóg ñëw fëgg papa dem ne ko paap mu ne naa ma ni ko Assane mi ngi hôpital de mu ne ma lan ma ne ko mi ngi hôpital dafa daanu ci yoon bi mu daal di génn ndeysaan taf loxo bi ci bopp bi yuux ma ne ko pap yow boo defee nii ah kon man nan laay def mu ne ma waa waa baax ne nañ dem ñu ànd génn fi biti jël oto dem ngi ñëwee ñu fekk ko fa hôpital waxul gisuñu dafa gëmma ma rek papa dee ne léegi docteur bi lan la wax mu ne foog ñu scanner ko foog ñu fay ci bunt bi cinquante mille papa Demba daal di def ni poosam génnee joxe daal di ne léegi docteur bi ne ko mëtul mu ne ko waa xaar ma maa ngi ñëw mu génn ñëw ci kër gi jël xaalis dem fay ko bi duggee docteur bi seet ko daal di ne fii amul place ma ne ko amul place mu ne déedéet man ko jëlal malaat bi may naa la ko comme que amul place ah man munuma ko gàdd di ko yóbbu suñu kër may naa la malaat bi eh ñëw leen ñu dem papa dema ne xaaral mu am benn jànqa bu koy xool ba mu yàgg mu ñëw jànq bi ñëw ci papa Demba daal ne ko man fii laay liggéeyee Euh, sauvetage am na ku génn sauvetage léegi dama bugg nga wax ko docteur bi naa la jàppale mu dugg sauvetage papa Demba daw ñëw na ma ndey kii nee na am na place ñu dem ma ne ko wax ko docteur bi mu ne ma kaa ñu dem rek ma xool place bi mu xool daal ñëw ma dugg ne docteur bi kii de sauvetage mu ne am na benn place mu ne waa ñu dem ñu teg ko ci pousse pousse bi dem nii ba demuñ gisuñu ko ba nu mu doge Demba nag baax na moom rek lañu ñu dese am ñu keneen ñaari góor la kenn ki dem na papa Demba amul benn problème benn problème li muy def mu yokk ko rekk yàlla yokk ko ci dara joy yeneen bi li muy def yàlla na ko yàlla yokk ci daraja yonent bi ndegam ñoo bokk ndey ak baay. ba sama mag la man ñaari mag yu góor laa am muy Assane Ndiaye ak Pape Demba Ndiaye Assane Ndiaye nag yàlla jël ko te ñu koy jooy ba léegi noppee bu ñu ndax suñu papa la woon ci biir kër gi Pape Demba nekk rakkam ñu composé ak ñun ñu mel ni ay moroom fii amul mag amul rak dañuy jël def ñu comme ay moroom. lu ñu naqadi da leen di naqadi lu leen neex neex ñu ñu bokk ndey ak baay nag dara du xaj suñu diggante kenn xajul suñu diggante waaw man li ko ñaanal nag lii muy sombi nii yàlla na ci am ndam te dara jayante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boroom baax la Pape Dem mi ngi ci ceeb bi mi ngi ci añ bi mi ngi ci lépp day dem marché day dugg ñëw andi billaahi amul lii amul lee déedéet dañu bokk ndey bokk baay mu nekk ku baax ku ñu bëgg ku bëgg lépp lu ñuy def daf ci ànd Pape Demba mu ci bëre ak ñun li muy def ci mbedd mi xam nga ni dina def ci mbedd te du def ci kër mais Pape Demba day def ci mbedd mi def ci biir kër gi li ci mbedd mi nag moo raw kër gi moo raw mbedd mi sax macha allah daal di ko ñaanal daal yàlla lafal ko cat ci darajent bi sallallahu alayhi loolu daal lañ koy ñaanal daal lii mu sombi nii yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabi alamin mu doon suñu mbégte nag yàlla na doon mbégte àddina yëpp ndax Pape Demba ñëpp ko moom ñëpp ko bokk Pape Demba nit yu ñëpp la macha allah daal yàlla lafal ko cat. sama nijaay la mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ma doon euh, témoigner ci ni mu mel ci kër gi mi ngeeg ñun comme ay moroom. franchement parler mu ngi mel ni du suñu nijaay te mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay moom moom ak sama yaay mais mi ngi kaf ak xale yi mi ngi foow ak xale yi ni muy def ci théâtre bi noonu lay def fii ci biir kër gi macha allah sama doom bi day jékki-jékki tonton Pape cokkotaan ma nga gis mu koy cokkotaan di foo ak affaire yooyu noonu day def day joué kilifa bu kilifa bi passé day foo day kaf da gis ñu ne nit ki. ni muy def ci tele bi du ko def këram noonoo ñun day kaf day fecc day foo day ree euh, euh, mbubbu théâtre bi bu ko simmee kilifa bi muy doon ci biir kër gi day doon kilifa si ñun su ñu waree wax dara daf ñuy teg wax ñu li ñu war a wax su waree kaf ak ñun day kaf ak ñun ñun daal duñ def dudul di ko ñaanal aar bi li mu ci bëgg yàlla na ko yàlla defaral moo xam li mu bëgg ak li mu ci soom bi nii yàlla dimbali ko ci ba mu sotteek jàmm ñuy wax daal ne ca kaw daal ca kanam Papa Demba Ndiaye. Adja Sophie Cissé laa tudd dëkk rue 1 angle 12 jigéenu Papa ba Ndiaye ku ne xam na ma ci loolu kon nag Papa Demba boo leen ñëwee di laajte ci moom yegg si ngeen fi ngeen war a ñëw dem ba amul teraanga bu mu dul bu muy def ci àddina te ñëwul ci kër gi bu yeewaan suba teel fii lay yendu. ba ngoon jot mu doon dem seen kër fii lay lekkee fii lay naanee fii lay defee lépp muy sama xaritu frère muy nit ku baax nit koo xam ne bu ko nit xamee ba léegi changé wul papa dem mu musa mel noonu la noonu la mel doo ko gis say mu mel nii bu subaa mu mel ne neen benn façon bi rek day xam ci papa dem macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat mun a sargal nit mun a teral nit donc Sénégal bu koo delloo ko njukkal rek ci moom la dañuy war a defal bare nañ mais Papa Demba dañ ko war a jukki defal ko ndaxte c'est un artiste plein xam lu baax yaroo fu baax juddoo baax di def lu baax pour ko buñ ko sargalee rek war nañ ko sargal Papa Demba bu yeewuwaan fii la ñëw di toog bu ko ci laajtee foo jóg mu ne leen man maa nga dëkk kër Adja Awa sa muy sa maam sa maam bi génnee àddina lu may retenir ci papa Demba maa ngi tollu ci cimetière yi ñëw di maam papa Demba mi ngi nekk ci sama bopp maam di ko ñaanal di ko ñaanal ñaanalu ko rek yem ci loolu rek de daf koy ñaanal di ko wax li mu ko xamal ci lu baax ci àddina ma ñëw nekk ci ginnaawam gisuma mais affaire boobu daf ma marqué daf ma marqué à vie ndax nit muy dund nga di ko bëgg muy dee nga di ko bëgg mu gestu ne ma Sophie mënumaa dugg ci armeel yi te commencé wu ma fi heure bu ma duggee ci armeel yi rek fii laay commencé di ko tagge mel na koo xam ne dafa judd ça m'a ndax loolu kóllëre mënu ko weesu ngay bëgg nit ki muy dund day bëgg nit ki mu dee nga di ko fekk ca bàmmeelam di ko ñaanal kooku ñëpp ko mën bu mu amoon conseil bu may jox Papa demb Ndiaye est que Papa Demba tam war nañ ko conseiller Papa Demba nitu neen la de dara newul ci moom baax laa ci xam yaatu bëgg ñépp bu amee tamit loo ko war a war a mun a wax xanaa rek euh, mu ne rek li mu nekkee mu gën ko yokk rek yàlla jàppale ko ci mais kay pour am rek conseil bu négatif bu ñuy jox Papa Demba Ndiaye macha allah loolu suma ko ci man dañoo dëkk plus de léegi mu am plus de cinquante ans mais ci dara loo xam ne lu ñaaw la lu ñu ko di ko si gisuma ko su la gisee de loin moom moo lay njëkk ko balaa nga koy xàmmaliku moo lay gën njëkk ko ubbeeku balaa ngay yegg si ci moom kon defe naa ne amul lu négatif lu ñu war a mën a wax ci Papa Demba Ndiaye macha allah yàlla na ko yàlla lafal jàpp mu commencé bisimilahi rahmaani rahim yeggale alhamdulilahi rabil alamin yàlla na senegal xam bu ñu sargalee Papa Demba Ndiaye kii mooy kan te bu boobaa defe naa ñëpp dañu mun a gën a xam Papa Demba Ndiaye mooy kan simplicité ma ko jàpp rek. simplicité boo jàpp Papa Ndiaye rek mais Pape lu mu mun a lu mu dugg rek mun na fa nekk un artiste plein macha allah. salaamaaleykum man la Ibrahima Cissé ñi may wax Sera c'est pour la première fois nag yi musuñu ko nangu quoi mais Pape Demba Ndiaye jar na ko xale bu yarula bu baax bu am respect bu bari teraanga vraiment moom jaral na ma génn di wax nii parce que bu dul woon moom. moo ko def parce que man ak magam ñoo daan ànd nekk xarit mais yàqu ci dara bi mu génnee àdduna ba léegi respect bi jox jox ñu cër jox ñu yëpp Pape Demba Ndiaye dina ma jox xaalis dina ma toppatoo ñu ngi koy ñaanal lii mu sëmb yàlla na ko ci yàlla jàppale yàlla tooleel ko vraiment kontaan nañ trop mooy li El wax li El wax tëj na lépp mënul suñ ci wax dara. yaru na baax na am na ñëpp bu summi ko may la bu romboon léegi nga ne ko séeréer bi rafet la mu def ko su mbuus yónnee la ko yàlla na ko yàlla jàppale li mu sëmb nii yàlla na ko yàlla may ndam ñu leen di gërëm di leen santaal xam tàng na nag tàng am fit tàng na am na fit bañ na ku ko yeb bañ na ku ko yeb te xeexam du jeex. asalaamaaleykum. waa Medina TV boo ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar ñëpp waaw léegi nag euh, wax ci Pape Demba moom dina ma yomb dina ma jafe ndax euh, sama waay la ak xam nañ fu ne defandoon nañ lu ne séq nañu lu ne mais toujours égal à lui-même Pape Demba Ndiaye nag bésam moom moomu ko waa Médina ñëw moom bés du ma ne sax waa Médina ndax moom amul sens interdit dëkk bu ñu mësa ànd moom day mel ni fa la juddoo ba mbuur man mi fa juddoo sax lam fa xam man xawma ko dañ daan toog fii Dakar ba ay minuit départ dem mbuur moom daal sama waay yi man daal li ma ci mën a wax bésam du bés moom moomu ko waa Sénégal si boppam ñoo ko moom Pape Demba Ndiaye nag moom nit spécial la spécial ndax mun na joxe lépp mun na joxe lépp te du ci rocci dara ak loo ko mënti def loolu nga ko defaloon ci lu baax loolu lay jàpp toujours nekk na koo xamante ni bañkat la kenn ko dugal ci loo ci lu mu xamul nekk na koo xamante ni tamit euh, ku fonk kóllëre la ndax lii kóllëre la am na fu mu mënoon dem ñooñu waxal ko lu leen neex waaye fii mu ñëw nii ñun ñoo ko xamal ñun ñoo ko mën a waxal Pape Demba nekk na koo xamante ni ku bëgg nit la ku fonk nit ku fonk ay waay jërëm këram moom mun nañ ni li ñaan sanzala ku ñëw rek ca kër ga nga dëkk ku fa fanaan benn bis mel na fa nga dëkk donc Pape Demba li ma mën ci wax wax ci moom dafa bari bari bari ba nga xamante ni mun naa ci joxe ay xise yu bari ndax dañu bokkoon di def affaire politique bourgie woonu Pape Demba bu mu ñëw petoo ñoom ñaar mu ne ko kër gi de gannaaw menuisier métallique ngay def kër gi boobu bëggee ma jëndal la ko Pape Demba Ndiaye ni ko bu fekkee ne pour man la jaru ko waaye dinaa la conseiller leen bu la neexee nga jënd ko def ko sant ñun ñëpp ñu fiy daja ñun ñëpp ñu bokk cee yem ci la bourge jënd rue 10 fi ñu naan Élisabeth centre Élisabeth ci la bourge jënd foofu nekkoon tey Pape Demba bu ko neexoon danaan kër gi nekk rue rue rue douze angle un ci ruq bi fi boulangerie bi nekk kon kër googu Pape Demba moo koy moom ci turam lay nekk ndax bu bourge moo ko sabablu moom mu bañ ko wax ko lu gën loo xamante ni ñëpp ci lañuy ñuy bokk bourge daf ko sant ba yàlla def léegi defe naa ni Medina yëpp fa la ñuy fajoo kon noonu loolu sant yàlla la ñu koy gërëmee Pape Demba ak yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen Pape Demba Ndiaye daal nit ku yiw la ku baax la ku bëggu mbokk la ku fonk kóllëre la. man la El Hadj liggéey dëkk yu 5 angle di kontaan nag ci li ngeen ñëw ci man ndax Pape Demba Ndiaye def naa ma je suis bien placé pour mën def témoignage ci moom ndax ñoo màggandoo fowandoo jàngandoo alxuraan mu nekk sama xarit ba léegi léegi lu ma ko sañ a wax kenn sañu ko wax ci koñ bi li ma mën wax ci moom daal mooy Pape Demba ku bëgg Médina la commencé ko ci bëgg koñam. bëgg quartier am abattoir bëgg Médina Médina jaral na ko lu nekk ku am fulla ku am fayda ku ñemee dëgg ku ñemee dëgg ku mën ku mën féete Papa Demba daal ci mën dégg daal ñoom nit ku baax la ku gëm boppam ku ñàkk caaxaan am nañu ko comprendre sax ndax bu dara amee ci koñ bi moom xaar ci kenn xaarul meer xaarul dara mooy jël mooy jóg di ko toppatoo di ko topp mooy toppatoo loolu bëgg na bëgg bëgg na dëkkandoo yi bëgg na koñom plus particulièrement li ci wax nag mooy moom mooy bañ nekkee xale su Pape Demba Ndiaye doon def yenn problème yi buñ ko àttee bañ bu sama yaay génnee rek nag Pape Demba rek mu mu mu mu bàyyi loolu nag mooy loolu la mën a ax ci moom Pape Demba daal nit ku baax la bu ñu def dañuy répété rek ku baax la ku am ful la ku bëgg quartier ku bëgg koñam. loolu laal leen amoon loo xam ne mun nañ ko ci wax amul leneen luñ ko xam ne daal loo mën ci dégg daal baax du weesu baax Pape Demba ku baax la ku gëm boppam. anecdote yi anecdote yi rek nañ nañ ko bàyyi noonu dañu bàyyi anecdote yi <laughs> nañ nañ nañ ko bàyyi rek nañ nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi léegi daal nañ ko xam ne bu demee bañ demee bañ demee di jàng alxuraan ci karamoxo ne ko ndax ndax mi ngi fàttaliku karamoxo bi ñu doon jàng alxuraan bañ fa nekkee ak suñu benn suñu benn sœur bu ñuy wax kumbali am na am am am lu am lu ko mën a defoon mu làkk mu làkk pël mu làkk pël wax ko ne moom <laughs> bu ko déggee di ree ba sonn <laughs> ak mos na dem doon na dem doon mos na mos na dem def box mais yàggul ndax lu ko teree lu ko tax bàyyi box na na leen ko nettali <laughs>